ñu ñu ngi toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett femmes mais ñun suñu activité moom lañ moom lañ leen tegal noonu dañuy béy dañuy paañ dañuy dañuy defar leneen daal dañuy def ay reboisement ak yooyu yëpp bari nañ moom si lu ñuy yëngu ñu faamu faajaal yi bari na torop ba li ñuy yëngatu moom. ak yan mooy gàllankooru liggéey bi fii nii. alhamdulilah. mu ngi dox sant yàlla doxu kakataar ndax li ñu bëgg yëpp wax dëgg amuñu ko mais nag yàlla baax na bi nga xamante ne ñii ñu ngi ñu ngi sees sees si nañu ñu ngi leen di yaakaar bu baax xam naa ne li ci manqué yaakaar nañ ñoom ñu motali ko. lan ngeen di xaaree si si gannaaw jotaay bi. li ñuy xaar ci ñoom ah mooy liñ fi jot a wax xanaa ñu jàppale ñu si rek loolu de lañ fi xaar ñu si ñoom waaw ñu jàppale. nga xamante ne mooy suñu suñu problème waaw yaakaar nañ leen nag bu baax yaakaar nañ leen de wax dëgg yàlla ndax état moom yaakaar rek lañu am ci ñoom ndax wax dëgg yàlla gis nga jigéen ñi ñuy wolati bariwatuñu te loolu yëpp ci seen yërmande lañu waaw a wolatuñu root bi rootatuñu kon wax dëgg yàlla ñi nekk ci état bi lu du di leen di ñaaral amuñu dara luñ leen wax ñu surtout ñu jigéen ñi jigéen ñi moom li ma leer te leer booy makki Sall wax de xam nañ man man de xam naa fi ñu teg ak fi ñu fi ñu ñu jëlee fi ñu nekkoon ak fi ñu indi man xam naa ko bu baax ma ci sama jëm bopp ba ngeen yëgee ne ndawul buur dafa war a ñëw seet si leen yéen lan ngeen yëg ak naka ngeen ko waajalee. kontaan rek dañoo kontaan ba xamatuñu sax lu ñu war a wax dañoo kontaan affaire bi sax dañoo xaw a bett mais buñ ko waajoon te ngeen gis ba waaru nag def ñoo bett nag lu nag mon la ah, waaw ak ak dëj bi. mais bu dul woon loolu tey ngeen gis fi lu ne Macky sàll boo mu jëlee dëkk bi ba tey boo mu jëlee senegal ba tey fi mu ñu fekkoon ak fi ñu agsi nii xam nañ ko bu baax Macky Sall bi ñuy ñëw booba ñu ñu jigéen ñi surtout jigéen femme faajaal dañu bay woon béyu ceeb Macky Sall bi mu jéege moom moo ñuy jox ceeb ay toni ton ñu di koy bay dégg nga mu jox ñu machine bu bu ñuy wole jox ñu machine bu ñuy béyee dañ ko subventionné nag moom moo ci jàpp dégg nga jox ñu machine bu ñuy béyee bu ñu bu ñu naroon a béy suñu ceeb bi mois de août le 20 août moom na ñu doon béy suñu ceeb bi di xaar machine Sine Saalum yi Macky Sall moo ñu ci jële jëlee ñu ci ceeb jóg 4 heures du matin di wol ba teesal Macky Sall moo ñu ci jëlee suñu dugub bi nga xamante ne dafa doon yàqu ci saq yi Macky Sall moo ñu ci jëlee. dégg nga ceeb dañ ko fii lañ ko doon jële ceeb bi di koy yóbbu Sine Saalum foofu lañ ko doon wale Macky Sall da boo ñu ci jëlee kon li ñu Macky man de bu ma doon yàlla Macky rek ba dee waaw politique nag indi wuñu waaw tey développement moo tax ñu wax mais Macky moom mande de man ci sama xol bi wax dëgg yàlla moom kontaan naa ci moom trop. ñun nag dañoo nekk jigéen yoo xam ne dañuy yëngu ci affaire jur waaw bëgg ku ñu jàppale ci jur yi. sécurité bi amuñu sécurité suñu dëkk dafa lëndëm amuñu courant bu ñu amoon ku ñu jàppale ci courant bi ndax sàcc yi mu ñoo bàyyi dina ci baax jur yi tamit ripaas bi dafa cher te xam nga ripaas ni mu chéré nga bugg a jënd sa jur bugg a jënd ripaas ndox bi ndox bi tamit facture yi day cher waaw waaw. waaw yéen col euh, bagana séeréer. Euh, si ñaar ngeen toll. ci quarante personnes. waa personnes waaw. di ci élevage bi. waaw di yëngu ci élevage bi. Mhm. nag yi. tey euh, ndawul buur bu ngeen ndawul ministre Zahra Iyane bi leen bi ngeen recevoir. waaw woo na ngeen booloo de benn GIE boo xam da liggéey ma travail à la chaîne kii yor li kii yor li. waaw loolu nag ngeen ko fas yéene jëmmal. waaw ñu bëgg ku ñu jàppale rek. bu ñu amee ku ñu jàppale moom dina ci baax lool. waaw moo tax moo ñu moo waral suñu tànk yi tey fii ñu déggee ne dañuy woote Fadial moo tax ñu bàyyi suñu liggéey yëpp ñëw fii pour jooytu lu ñu amul ak lu ñu am kii kiiwul rek. waaye tey nag dañu ñëw fii nga xamante ni moom mooy Fadial ah, nekk ci commune nu Nguéniène donc depuis euh, ñetti fan yëpp ñu ngi fii Mbour di am ay waxtaan ay tournée yoo xam ne dañ koy def di ko jagleel askan wi. donc man maa ngi tudd madame Fatoumata Diouf nekk directrice des stratégies et du suivi évaluation euh, nekk ci ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire ñu ànd ak sunu waa ministère yëpp ci ndigalu madame le ministre Zahra Iyane Thiam moom mu nekk ci ndigalu président de la république monsieur Macky Sall son excellence donc solos tournée bi. dafa nekk euh, tournée boo xamante ni dañ koy faral di def di wisaare li nga xam ni moom la ministère bi di def ndax bu ñu jàppee ni ministère bi ñaari banqaas la nekk finance benn bi nekk économie sociale et solidaire ndax bu ñu fàttalikoo ci lu néew président Macky Sall dafa ne woon ci deuxième mandat am dina fexe ba économie sociale et solidaire nekk levier bi nga xamante ni moom développer Sénégal te loolu mu fas yéene ko dox dox ak ndaw ñi ak ci ràññee ak ci xam-xamu madame la ministre ñu am loo xamante ni ajjuma bi passé moom loi d'orientation sociale bu économie sociale et solidaire assemblée nationale adopté nañ loolu dafa nekk cadre boo xamante ni dafay Euh, tënk boole acteur économie sociale et solidaire yëpp wan leen ku ci bokk yan màndarga nga war a am ku ci bokk naka nga war a taxawee ku ci bokk fan nga war a mën a laalee ku ci bokk lan ma moo la ci war mën a fekk ci ci ci anam ci anam anam yu nu mu gën a rafetee te loolu dafay baax ñu àggale ko ci population bi xamal leen lan mooy modèle économie sociale et solidaire mu nekk modèle boo xamante ne bu xarañ mu nekk modèle bu euh, boo xamante ni mën na développer Sénégal modèle bu mucc ayib donc tey looloo waraloon ñëw seet si fii tey jii waa Fadial waxtaan ak ñoom euh, gën leen a yee ci modèle entrepreneurial bu économie sociale solidaire waaye it fas yéene dem ak ñoom ci ay xeetu jàppale ay xeetu appui ay xeetu encadrement ba nga xamante ni seen activité yi ñu nekk jigéen ak góor mag ak ndaw dana ñoŋ dana mucc ayib. nga ne ay xeetu jàppale est-ce que jàppale yi mën na jàpp ne ay enveloppe yu ñu jox la wala ay moulin wala matériel yu ñu teg loxoy famille jigéenu gox bi. waa xam nga bi ñu ñëwee dañu identifier ñan ñoo fi nekk li olof Ndiaye di wax naan balaa nga xam sa waay nga àgg ba këram mënuñu toog Dakar xam waa Fajal lan la soxla. donc boo seetloo dañu organiser ay focus group ñëw toog ak euh, présidente organisation macha allah tabar fakal la macha allah kaar tey jii nekkoon nañ fi ñaar fukk ci biir ñaar fukk yooyu jël nañ ci ay nit ñoo xam ne waxtaan nañu ak ñoom te ku ci nekk wax nga ñu lan mooy sa soxla kon ñun xam nañ jigéen ñi Fafa lan la ñu soxla xam nañu aussi ci lan la ñuy yëngatu. ci biir yëngatu boobu nag ak seeni soxla lañ leen di ci fekk ji amaan na seet bi mën na bañ a nekk rek ay koppar te nag daf ci am solo waaye dafa am jàppale boo xam ne ñoom ñëpp dañ koy soxla muy jàppale encadrement ndax dañ ci gis ñoo xamante ni ñu bëri naam ñi ngi dem mais soxla nañu ku leen encadré ndax ñu mën a jooyantiku dañ ci nekk ñoo xamante ni li ci ëpp Euh, dañuy ànd noonu rek ci ànd goo xamante ne yàgg dëkk la ànd goo xamante ne ñoo bokki soxla mais tënkuwuñu ci këyit mooy formaliser wuñu ñun dañ leen di jàppale ñu formaliser wu te toujours ci cadre loi d'orientation sociale bu économie sociale et solidaire buñ leen jàppalee nag ba ñu am ay këyit am reconnaissance ndaxte nag nguur mënul liggéeyal koo xamante ni tënkuwul amul kayit ñu jàppale leen ci ay formation ndax loolu yëpp mën nga ko am te doo am formation doo am dëgër laay boo xam ne dalay lay permettre nga mën a xuus ci activités yi nga nekkee dañ leen jàppale ci formation danañ leen jàppale tamit ci ay jumtukaay yu ñuy soxla ndax fii jumtukaay yi fi génn tey jii bëri na ndax jigéen ñi am na ñoo xam ne dañu ne soxla nañu ñu jàppale leen ci li nga xam daf leen di permettre ci seeni euh, maanaam yarub jur gi ñu nekkee mu gën a ñoŋ kooku soxla la soxla nañu loo xamante moom la jur bi war a mën a di jëfandikoo di lekk soxla nañ ko te loolu loo xamante ni jàppale bu dul mën a nekk koppar la mën na mën na ko bañ a nekk soxla nañu ku leen former ci ay tibu formation yoo xamante ni lépp transformation ndax dégg nañ fi sànq relais communautaire yi yi nga xamante ni bëgg nañu ñoom gën a ñoŋal seen produit yi nga xam ne dañ koy def ci côté li ñuy jàppale ci xale yi ci nutrition bi dégg nañu fi tamit ñoo xamante ni dañuy bëy ceeb te ñooñu soxla nañu seen terre seen seen rizières yi ñuy liggéeyee ku leen ci jàppale soxla nañu ay tracteur soxla nañu ay décortiqueuse soxla nañu ay ay moulin soxla nañu maanaam matériel boo xamante ni daf leen di jàppale ci seen liggéey kon ñun tey li ñu fi taataan moom mooy ñoom soxla nañu euh, encadrement et encadrement forme bu nekk lay jël mën na nekk financier mën na nekk matériel mën a nekk coaching mën na nekk mise en relation donc vraiment te bu ñu fi ñëwul woon tey du ñu mën a euh, def loolu yëpp duñ ko mën a xam nit ki pour nga xam la muy dund foog nga fekk ko ba fa mu nekk fekk gis nañu seen produit yi présenté nañu ay produits produits yi nga xamante ni fii ci dëkk fii ci gox bi la soxee ko moom mooy modèle Euh, économie sociale solidaire modèle bu mucc ayib waaye ak meññeent ak meññeent yoo xamante ni ci gox bi lay jóge ndax loolu la muy permettre moom mooy li président doon wax naan dafa bëgg faj inégalité yi ku nekk gox ba nga nekk la nga xamante ni moom mooy soqe ko ci gox bi nga jël ko fexe ba mu ràññeeku nga transformer ko ñi nekk ci gox bi gox bi loolu moom mooy modèle économie sociale solidaire modèle bu entreprenant modèle boo xamante bu innovant lépp lu ñuy liggéey dañuy booloo liggéey ko bu ñu ko booloo liggéey ko mu am jeexital ci askan wi naa ne gox bu nekk la ñuy liggéey ak la ñuy meññent bu ñu ko jëlee mu amaat jeexital ci askan wi bu ñu ko defee Sénégal dina mën a euh, développé wu nit ñëpp dinañ mën a gis moom la son excellence teg mu war a am jeexital ci as